travers DS Prod amati nañu mbégte kontaante jàkkaarloo waat ak ci seen émission kaay toog comme niñ ko baaxoo di defee rek fépp waaye nekk danañ la fa fekk mbaa sax ñu xëcc la nga ñëw toog fii ndax saa su ne ñu ni leen bu gaay di gasee peel ñun pokalin la ñu yor dañuy gas affaire yi fi mu gën a xóotee ñëw teg ko ci table bi ñu partagé ko nuyu nañ bépp internaute boo xamante ne rek yaa ñuy suivre à travers DS Prod te di leen wax rek on est de tout cœur avec vous tey nag maa ngi fi dalal ndaanaan ba nga xamante ni kenn dootu ko présenté euh, Bayla maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay siyaar yaay booy. Bayla Waali. waaw Bayla Faramaren. Bayla bu Pikine. di siyaar ñëpp nag di nuyu yaay faal yi. di nuyu baay faal yëpp kullu. bàyyuma kenn nag di nuyu waa Seeraas waa Pikine. waa Ouest Foire Nord Foire. di nuyu nag Faramaren yëpp. bàyyuma kenn nag cat ba cat nag angle ba angle. maa ngi nuyu ñëpp. waaw di siyaar ñëpp tamit. merci beaucoup Bayla jaajëfal suñu kilifa diine yi ah, di leen di ñaanal saa su ne rek waaye di sàkku ci ñoom ñaan ah, wëlbatiku ñaanal leen yàlla wéral seen i ñoo di seeni fan gannaaw loolu ñu dugg ci prison yi ah, ñaanal leen ñi caabi féete ginnaaw yàlla leen caabi féete kanam ñi nekk ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat seen i activité ndaxte nag tubaarkàlla suñu borom bi gannaaw bu moo ñu sàkk te ku mu bëgg rek lay tey lay teg nattu yàlla ñu yàlla teg nattu àddina yépp Bayla ñu bàyyi rek nga wax waa àdduna kan mooy Bayla waaw benn xale la Bayla benn nit la boo xam ni xam nga juddoo na Pikine màggee Pikine yaroo Pikine xam nga cëkk ak ñëpp jàmm nag di Bayla nongoloo Bayla bu Wally Seck Bayla daal Bayla ñëpp la waaw. Bayla ñëpp la waaye dafa mel ni Bayla dafa am fu mu féete ndax Bayla gis nañ ku tudd Wally Seck rek Bayla génn tëmbal ko ay xeer voire même saaga ko. waaw Wally Wally sam patron la. waali nit ñi boo ko jegewul comme ni ko ni ko olof di waxee kiy def lu baax di ko nëb soo feeñee rek doo rus bu la yàlla fay rek nga am ndam waali foofu la toll ndax waali tamit xam nga kilifa la dafa am ay waajur am ay doom xam am ay nawle mais boo déggee ñenn ñi di génn ci télé yoo xam ni sama waa yi xam nga di di dépassé ñun daf ñuy metti waaw mais nag bañ nag nag koo laal danga may laal balaa ngaa jot si waali laal ma waaw kon naka ngay dundee ak ki nga xamante ne moom mooy xalifa rappeur génn bu yàggul dara ci Death Prod def ay révélation yu doy waar ci faramaareen bi waaw boo xoolee tamit loolu moo gën a indi quoi ndax tey ji bu ma soñoon dañuy jàkkaarloo tey ci plateau bi xalifa dafa daw billaahi wallaahi tallaahi bu ma soñoon mhm. parce que fii la ñuy toog ñu jàkkaarloo parce que xamul waali jegewul waali moom na nekk di wax ci réseaux sociaux yeeg loolu maa ngi moom laale nañu xamante nañu waxam dafa bëri dafa rëy làmmiñ mën a sos di tooñ tooñkat ak tooñkat ñoo mën a ànd waali du tontu kenn man mi maay tontul waali noonu la demee euh, euh, euh, yow ak xalifa fan ngeen mës a daje foo leen daje non xalifa <coughs> dafa am benn bis boo xam ne dafa dafa newoon ay dañuy taal oto waali yeeg xam nga di tooñ di wax loo xam ni xam nga dara xam nga waxu dof ma woo ko direct ñu jox ma numéro ma woo ko direct numéro barki Seydina Mohamed maa dem ba Medina ñu jox ma ko ma woo ko yow la kan ma ne ko man la baylaa bu waaj fan nga nekk ma ñëw ba Rue 5 sama benn copain fi ñu jaayee ndawal yi ma ñëw fa woo ko diggante 4 heures laa fa ñëw ba 6 heures xale fa nangu maa jëlaat ñu xëy deuxième jour bi mu woo ma ne ma mu ngi rond-point ma taal machine barki Seydina Mohamed mhm. billaahi kon yàlla ma egg fi ma jëm taal sama machine ñëw ba rond-point Seeraat xalifa daw xalifa ba tey ji nii coupé na sama xolo su ma ko woowee du ma ko jot appel whatsapp sama tiktok lépp du ma ko jot même buy def vidéo sax du ma ko gis parce que tiktok yoratuma ci dara ci tiktokam appel la léegi tey euh, lan nga ñu mën a wax rek ci euh, euh, génn bi mu génn ak tuuma yi mu teg ci kaw Waly Seck ne dafa def takku suuf takk na ki nga xamante ne mooy Astou Sall nekkoon ancien Miss Sénégal nekk animatrice fële ci 2S waaye xam nga loolu dama koy dégg rek damay dégg nii si yenn rumeur yi rek xam nga kooku noonu moom laa lay wax nitu sos la kooku doomu iblis la hmm. barki seydi doomu seytaane la xalifa yaa ngi may dégg seytaane la te boo jàkkaarloog man boo ko waxoon ma dumal ma nopp la hmm? billaahi wallaahi tallaahi gis nga xalifa nu mu waaye ma tollu ma lenn tollu motuma 10 kilos wax naa ko on a aussi TikTok bi motuma 10 kilos. Mm-hmm. te buñ jàkkaarloo ma ñëw ko noonu waroon na ñëw toog fi ñu jàkkaarloo. barki yàlla mais est du kon duma yooyu la doon daw wala tamit est-ce ni da ngeen ko tegaat dil parce que moom nee na da ngeen ko doon bëgg a agressé. làqatuma non agressé xam nga ñooñu noonu ay booy yi sànni xeer la jàpp ne ay xam nga dafa rëy daan dafa bëri wax ñun bu ñu bëggoon dal si xalifa dal nañ si xawam bu baax. Mm-hmm. billaahi wallaahi tallaahi xalifa man la bay laa làqatuma man maa la doon woo téléphone. ah làkkatuma maa ngi nii fan nga laa def yaa ngi dégg man la bay laa nag li may wax sofuma déglu nga bu baax sa téléphone xam naa ko sa numéro xam naa ko man maa la wool ba ñuy dajee rompañ seeraas nga daw tàppet nga góor jigéen nga yow ah, ah, nga ne nga ne moom lan la góor jigéen hmm. mooy góor jigéen bu mag mag hmm. ak lim fi wax yëpp yëpp barke yàlla góor jigéen hmm. billaahi kooku mooy góor jigéen góor jigéen moom mooy koo xam ne day nekk si yore si téléphone am dugg si biir néegam wala laaxatu dugg si yenn si xam le ma la man bañ na ko balaa maa ñëw dama naan wool ma xalifa mu toog ñu jàkkaarloo dëgg la wala dëgg. dëgg la dama ne nañ jàkkaarloo. balaa mu doon neex ñu jàkkaarloo mu wax ko lu ma koy wax. mais moom dañuy genre nit yooyu duma def ak ñoom plateau dépassé naa leen. non mooy xalifa moom mooy lan fii loolu siiw siiw am na ñu la gën a siiw. rappeur waaye. rapport ba Medina Medina ñaata xew-xew la am da ngeen ko mos a gis si kaw podium. Hmm. waaye Khalifa mooy kan. ba ñuy inauguré stade bi da ngeen ko fa gis. ban rapport. ah moom moom mu ni woon mu ngi fa. waaye xanaa ci kaw tribune mi la toogoon. mais kenn invité ko. waaye xanaa ti dañ ko may tige xëy na mun na ay bamba ñooñ mun nañ ko may tige mu dem ah kooku du dara. <laughs> sa digganteeg 6000 problème. chimie xam nga mooy li la wax rek xam nga ñooñu dafa am ñu nekk seen ginnaaw genre chimie ah ak ay genre xale ba gis nga gars noonu. ñu jàkkaarloo ni yemuñu. ñan ñoo nekk ci seen ginnaaw. a ah, ah, am na bu ñu demee bay ñëw di wax waali. te mhm. waali waxu mu musu leen topp mu leen musu nga dégg ni waali day yóbbu nit kii nii wala nangam wala di foyantoog wala muy génn ci télé di wax. amul seen jot man mi maa am jot boobu jot boobu noonu man mi maa ko am. Mhm. waaw. yow daal yow yaay def fu ñu tuddee waali rek. nga génn. déggoo li xanaa yow. waale balaa nga doon xam demal këram. waale dama balaa nga doon xam man man man seex dama dama jàpp ni lii yëpp soxor la quoi yëpp añaan la. gis nga nit sol sa yére bu yiw toxulaa yiw foog sa xol yiw sa jëf sa xel yiw ngay soxol sa yére bu yiw ñooñu ngay wax noonu yiwuñu ay salte lañ seen xol seen xol ñuul xam ba ñuy xool nit ki tamit di xool xaw ma nu mu demee noonu mais xoolal li nekk ci ginnaaw waali man wàll daa am fa ma nekkoon waalee ma génnee barki Serigne Saali waaw. foo nekkoon foo nekkoon Bayla foo nekkoon. waaw mais Bayla dafa nekkoon ci benn benn business am rek mais waale moo ma génnee waat teg ma teg ma teg ma sama place barki Seydina Muhammad. business mooy lan Bayla na leer. non xam nga xam nga bay nag yaa ngi ci biir des pro bu ñu nëbbante bu ñu laaxat ma laaxat. ànd balay neex ñaar ñi di wanante seen xam nga xam nga xam mooy li ma wax man sama jëmm laay wax sama bopp laay wax. sa bopp waaw man li may dund xam nga nit ki tamit li muy wax day nekk si moom bokkuma ak ñoo xam ne tamit dañuy sos man li ma wax laa man dafa am fi man nekkoon yaa ngi dégg waale moo ma yëkkati teg ma sama place d'accord est-ce que comprendre nga li ma wax waale noonu lay day def dafa dafa dafa dafa am ci yoon waale dafa barki waale récupéré la teg la ci yoon bu baax noonu la demee nag waale day defaraate li ni balaa nga ko doon xam nga jege waale barki alxuraan karim wala nga jël si micro rek def micro xoolal nga taxaw ci dëkk bi yëpp nga naan waali nangam saam doo ci gis benn nit nga ci gis naan ni nii wala leneen genre xalifa yooyu noonu ay simil di wax ci moom lu ñaaw ndax dërëm mais simil ngeen xeex quand même non simil moom dama koo tànc foo ko tàncee bi des doore ba almadi hmm. ah waaw nga tegal billaahi bu ma duggee sama bàmmeel laa la yàlla bu ma gis gisanteeg rasulillahi léegi tànc bi nga ko tàncee lu mu la wax. tànc ma ne ko yow saa yi waali nangam mu naa ma non bay laa yee bañu ma waali. Mm-hmm. xam nga damay liggéeyal sama bopp si simil bu nekkee waxuma ko laa su ma duggee sama bàmmeel yàlla mu gisanteeg rasulillah. Mm-hmm. ñooñu dañuy dob doblu rek ci ay internet yeeg yooyu noonu ñoom réewuñu sax ñoo leen gën a réew fuuf. mais maanaam moom bi nga ko tancee pour bëgg koo defal bagaas moom moo la wax ne la amul ak waali pro problème mais day lijjanti boppam business am daal poosam daal ci gàttal li may wax ni ay témoin laa ci am ku ñu wax Aziz ak ki ñu wax El Pacho mhm. barki alxuraanu karim ñu ngi fa woon taxaw ak booy bi ñuy wax Fallou mhm. am man samay problème sama problème man kese la man soxlu ma nit di ma ci jàppale wala nangam jour boobu laa la maa ko seen wàcc si oto fekk ba fi mu taxaw si buntu biras doori barki Serigne Saliou si la ñoom El ñëw ba muy wax lool El Pacho ngi taxaw Aziza ngi taxaw ne ma man damay lijjanti sama bopp si si bi Diop waali kenn bañu su nekkee wax mais lan moo tax léegi ñuy nekk si business yi di tudd waali loo di wax di yàq waali loo xam ne nekkul ñu te bu nekkee ci suuf mel ni leneen la genre yooyu genre faux type yooyu moo baaxul si dëkk bi waaw kon eh, yow jàpp nga ne fi mu ne nii kii di xalifa kii di 6000. waaw soo leen woowoon ne leen kaa leen wuy waal dinañ dem. non instant yi 6000 man mos naa wax. mu ne ma instant fi mu féetee moo tax ak yooyu noonu barki alxuraanu karim. affaire bi féetee daal kan la. barki Serigne Saliou. oh kalam moo fi amul. mais Wally ñaata journée la def. ci mhm. tour Sénégal ñaata journée dafa am seen jot. Mhm. nañ waxante dëgg rek. waaw li coow li di bari bari kenn déggu ko. déggoo li ma wax ñun ñi daan topp sax waali gaan di ànd ak moom di liggéey sax dañoo mujj bàyyi ndax sonn. Mhm, ne woon na ndaw lu yaa fuus du ànd ak man. waaw dëgg la ñun dañoo teg resool jub dañoo bokk ñuy jaar feeraay. ñu jaaruñu feeraay de toog suuf pont nii ñun ci kaw appuyage bi lañ toog ñoqali. fa lañ toll nag. waaw euh, tey jii soo amoon looy wax ñi nga xamante ni peut-être li si mi li kii wax touché na leen li xalifa wax touché na leen que ni dafay euh, def ay détournement ay nangam nangam day jël këru jàmbur yi suufu jàmbur yi day jël oto jàmbur yi tey am na ñoo xamante ni peut-être mënuñ ko seetaan gëm ko wala nangam nangam tey ñooñu lan nga leen di wax. ne xam nga ñooñu chaque jour waali duma leen ci ci ay kii xam nga waali am na ku ñuy wax ci Balde bi gaañ. Mhm. te daan ànd ak ama mhm. waale yëkkati na terrain jox am na ki ñu wax jibi ama bëgguma ko wax sax mu doon sama ñu daan ko ketal waale yëkkati ay millions yu bari jox njago euro yëkkati bii avion jox barki Serigne Salim kon ñooñu noonu maanaam maanaam du ñu nekk waale mën ngeen mu defee taraangam ñoo taxaw jël micro di wax maa def lii maa def lee doo leen ko dégg ñun ñooy ñoo taxaw wax lii li muy def ci lu baax mais yéen ñi ànd ak moom est-ce a ngi gis seen bopp. waaw. Mm. est-ce que du turu maa ngi ànd ak waali bi rek moo leen yóbbu. non non wala ngi si gis seen bopp man nongolo laa la njëkk waay sama àdduna. leer laa lay wax. lan la la wayoon. non maanaam gaynde bu ma doon rek. ok waaw dama mos a doon gaynde te Amady Amady Bañaan tamit li mu gën a neexaat tamit Amady Bañaan ñoo juddandoo. Mhm. màggandoo fowandoo jàkkaarloo benn kër. mu ñëw di ànd ak waali man loolu mu gën a neexaat yaay booy pour mu leer waali billaahi wallaahi tallaa ay xalifa rappeur yi moo tax nag man man dama naan lii bu doon daje la rek wax ji day jeex billaahi laa lay wax nii mais daa mel ni xalifa daa daw daje bi nag ñemew ko waaye déggoo li ma la na xam ne ni moom na jàpp ne waale am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen rukk waale jaral ñu suñu bakkan bi jox ko addiya Hmm. Hmm. yow it da joxe bakket. barki Serigne Saliou jaral na ma ma jël sama bakkan jox ko addiye billaahi wallaahi. Ah, mais ci réew mi wax tamit nag. bokkul de xam nga saa eh, eh, xalifa joxe na fi bakkenam ngir. Sidy Diop waaw non rek. déggoo li ma ma mu daw. Hmm? barki alxuraan. yonent bi laa la waatal de daa daw woo ko téléphone maa ngi fii mu ñoqali daw. d'accord kooku du góor yàlla. mais Bayla yow nag dafa mel ni da ngay commencé bëri problème loo joteeg The Best. The Best bu Subatel bi def seen son yi te ñu invité woon ko bu yàggul dara. non kooku kooku dama déglu benn kii am xam nga naan ay yónniwuñu benn kii ñuy wala nagam day sóob moom xam na ni sax jour mu ngi mu ànd ak ñoom siimil. nañ bàyyi seen waxu naa fekk yooyu yooyu baaxul. bu famille waali jugee wala ci yenn staff waali jugee wax sax ñu dal si kawam. waaw pour lan loolu keroog mu ngi ñëw taxaw siimi fan la ne siimi nekkul siimi jóg ah siimi chaque jour mu tagg saaga barke alxuraanu karim te chaque jour nga gis ko ci concert waay euh, Sibi Diop chaque jour nga gis ko mu nekk ci wetu Sibi Diop simin mais yéen yéen yéen ñi bokk ci ñaari camp yooyu c'est quoi euh, lan mooy seen euh, en fait problème quoi parce que ñaari artistes yi kenn mësu leen dégg man musuma dox ba dégg ñu ni Sidi Diop wax na lii Waali musuma dox tamit ba dégg ñu ni Waali wax na lii Sidi Diop kon donc lan mooy seen problème Waali def loolu mooy ñi nekk ci ginnaaw rek waaw leen ñi nekk ci ginnaaw lan mooy seen problème ñun man moom amuma problème yooyu mm-hmm. mooy li ma la wax rek Waali ba muy def tournée mm-hmm. ñun dañoo mujj bàyyi ndax coono ndax sonn mm-hmm. tournée bu nekk ndar ah Thiès xoolal yi mu def ñu dañoo tal wax ñu talu ñu wax de mais ku wax ñu tontu la ku wax man maa lay tontu. waaw. ah yow gis nañ say vidéo ci TikTok bi. mais léegi ngay da ngay saaga de. damay saaga. ah waaw ñi may saaga xam nañ seen bopp saaru xalifa yi rek laay saaga. man moom waxoon naa sama plateau euh, euh, kenn du fi saaga mën nga ko xas nag parce que ñu bëri dañuy wax ni ñun dañu invité xalifa. mais li mu wax Waly moo gën a ñaaw saaga. waa d'accord dama ne ñu bëri dañ ne dañu invité xalifa. pour mu ñëw fii wax Wally Seck lu ñaaw parce que ñun moo gét moo ñuy fay attention ñun moo gét fayuñu tu vois man moom xaw ma saa yi ñun suñu patron dees la tudd ah, du moo gét xamuñu sax moo gét ah, man de xaw ma kenn ku ci nekk nag ak base bi nga am kenn ku ci nekk ak sa éducation kenn ku nekk ak ni ngay waxee peut-être yow yàlla may na la dal boo waxee te doo dépassé mhm. xëy na moom yàlla mayu ko dal boobu wax na dépassé na et tout mais bu amul dal ñun ñoo gën a réew mooy li la wax bu dee réew laa la fii la ëppee barke alxuraan ñoo gën a réew fuuf xalifa ñoo gën a réew fuuf billaay wallaay talaa ñoo gën a tepeeral fuuf réewul rek dañ koy joxe micro muy réewantu rek mais dafa waroon taxaw jàkkaarloo su jaa day yaru buñ jàkkaaroon day yar force wala mu ñaam jàkkaarloo boobu am maak moom. Mhm. waaw non jàkkaarloo bi dama koy tëgg fii la lépp di xewee. waaw man moom garaawul nañ ma wax lu leen neex amul problème. ah sa liggéey nga du dëgg ah. ah. yow sa liggéey merci beaucoup kon noonu la léegi nag dañ lay bàyyi rek euh, nga wax tey li nga bëgg a wax askan bi am na loo xamante ni peut-être neex na la. nga nga génne ko am na loo xamante ni naqari na la nga génne ko. waaw li ma gën a neex mooy na sa fii ka paako Gambie ñoo ko wax. Mhm. musique xale làmb xale football xale mm-hmm. muy doomu doomu doomu doomu doomu jaaga bi mm-hmm. barki sëriñ tubaa sama poton mm-hmm. kooku kooku ànd ak moom rek dafa neex barki alxuraanu karim kooku ndam la te yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ñu jàmm yàlla def suñu poste dara waaw di ñaanal ñëpp jàmm nag waaw loolu mooy li la neex peut-être lu la naqari ci réew mi nga xam te ne soo sañoon danga naan bu ñu ko defee woon nii mu jag wala bu ñu ko defee woon nii mu baax lan lay doon soxna si xam nga xol moo gën a ndaw si doomu aadama waaye moo si ëpp njëriñ bu gaa yëpp yaataloon xol yi tey mun ngaa lafañ wala sa tànk damb wala sa bët pat mun ngaa continuer dox sa dox mais xol bu da ngay yàq dootoo baax ba abadan waaw genre xalifa yooyu nag loolu lañ loolu moo leen sonal xol yu bon soxor waaw mais ki taxaw di yéene waali ay dañu war a taal oto mag wala bu oto génnee sax ñu commencé yuuxu loolu ban jalousie la loolu mooy lan loolu xeetu soxor la rek ñooñu nag ñoo war a raxas seen xol. waaw ndax temps bi xaarul kenn. waaw man chaque jour maa ngi si armée ru Pikine bi. ndeysaan waaw. armée ru. maa ngi armée ru Pikine yi chaque jour. maa ko xeex ba ñu yokk armée bi. Ah, léegi armée yi noo koy def fii loo fay def yow. non amee ñun ñooy responsable armée ru Pikine bi ñun ñoo koy. d'accord waaw xam nga armée yi léegi fees na mais ñun ñoo xeex bu ñu yokk armée yi. yokkal ñu cinq hectares di ñaanaan Macky Sall nañ ko gën a yokk ak douze hectares yi. Mm. waaw. kon yow d'accord nga Macky troisième mandat. non non loolu moom waxaguma ko ci quoi ay mm. troisième mandat yi moom saay mm. nañ ñaanal sama waa ji rek sama centre du peuple bi yàlla defal ko jàmm yow daal sa yoon ci affaire man sama lépp man sama yoon présidentielle ak ñoom seen yàlla xam nañ sama yoon li bi ak armée ru Pikine waaw cum merci beaucoup Bayla cant ak ngërëm ñeel na la kontaan nañ bu baax a baax ci wuy si bi ku ne xam na ni euh, euh, euh, tele bi fi mu nekk xaw naa xëcc ak fi nga jóge ñu lay remercier bu baax a baax nga ñëw wax yow tamit ni nga xamante ne noonu nga gisee affaire yi merci beaucoup ami internet yi ñu doon bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal du ñu tàyyi benn yoon saa su nekk rek di leen digtal ay invité yoo xamante ne bu ñu ñëwee fii leeral seeni problème ci kàttanu suñu borom ay ca merci ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Euh, di euh, euh, l'ambassadeur de techniciens kooku Aliou la ñu koy wax merci beaucoup njaganeen bu ñu xool li maa ngi koy bégee lu bari <laughs> mënu ma ko ba a ree nen bu ñu xool njaga bigi ah di jaajëfal sultan mi nekk ci son bi merci beaucoup suñu suñu DG Khadim jaajëfal nañ leen bu baax a baax waaye di kontaan ci ah, tubarkalla Doudou Seck hmm, le PDG borom ah, borom États-Unis la ah, doomu yaayu kii nu mu tuddati sax xale bi <laughs> bàyyi ma bàyyi noonu mu sedd ayca merci beaucoup ciao ciao